loolu la waaw bàyyi sama yére bàyyiwuma bàyyi sama yére yow da ngaa defee li ngay wax ci biir yëpp man dégguma ko ngay fen di dajale rek yow sama place si boraas bi mën nga koo jël yow yow wuy ma man yaa soxlaay si boraas yow xanaa déggoo li ma doon wax man ma ñëw fii di xool numéro yi xool fii numéro 57 bi mu nekk kër bi ma neex ma ñëw pour waxaale ko pour jënd ko nga bëgg ma naan ay Sibora. mën ngaa jënd cité bi da ngaa dëkk cité bay jënd cité yow. est-ce que yaa may dégg bu baax gis nga sa profession bi ngay jaay moo ne ci sama carte man damaa retraité fen ak xaaraan rek maa la ko dàq fuuf dama ko man bañ embauché ma ci kër gii loolu leer laa lay wax. loolu promotion la jógal féeg sa bët yi xonq yi nga ma leen laa la wax. waaw naa koo bàyyi. gis nga yow ba am nga sens. mais bi boo ma rombee ci angle bi bu ma la jàppee di nga xam ne lépp dëgg waaye góobaa yow. da nga mën a fen quoi place bi ma yor da ngeen ma koo soxore quoi c'est Orange kese ngeen bëgg ma ko soxore xa yow ah man damay fobeere rek bàyyi leen ma liggéey ngir yàlla maa la dàq fen maa la dàq maa la dàq xaaran du ma sa morom sax mer quoi